bàyyi ñëpp yow nga dem rek fu mu ñëwee dina ko jàpp. may ko mu ñëw may ko mu ñëw. buy dox sax ñu ko jëlaat. may ko mu ñëw. may ko mu ñëw. Thank you. jaajëfal di leen wax ne ñu ngi ci ndigal li euh, comme ni ko sëñ bëggee rek dëkk bu sell bi moom sëriñ bi day dimbale jaam ñi rek tax maanaam mu yab moom ñi nga xam ne xam na ne moom du ndigee faatu gi lépp sëñ Tuubaa moo tax mu jox ndigal li Cheikh ba tax nag fu ci waay nekkoon rek jógee nga xam ne moom li sëñ Tuubaa bëgg daañu ko defal nit ñi daa mel ne yëg nañ ko ba tax na teel nañu waajal seen bopp ba baax baax ba tax na daanaka liggéey bi mel na ne yombagul na nañ ñoom ndax fu ñu egg rek fekk nañ bagage seen war a génne génne nañ ko la foo war a topp lépp topp na fa ba tax na fi nekk ñi ngi xaal dem li li weesagun daal ni ko sëñ bëgg ñu ngi ci te fas nañ ko yéene eggale ci ni ko sëñ bëggee ñu ñaan yàlla suñu borom doole dimbal dimbal dimbali ñu baax rek ba ni ko sëñ bëggee ñu amee ko ni moom mooy mu fi nekk nii ñun daanaka jeex gi moom euh, yàgg geeg lu mu man di doon moom mi ngi aju ci euh, moom sunu borom mu ni ko sëñ bëgg daal ni ko sunu borom dogalee suñ bëggee ko noonu lañ koy noonu lañ koy defee ndax ñun tànk ndigal li jeexul moom duñ fi jóg bu ñu fi ndog yi doon fekkee dañuy taal di boole boo gisee murid yi ku ci ne ak mboolem ku di te xam nga ne lenn loo xam ne lu dëppoo ak lislaam doxu fi ba na loolu moom ñu ngi ci am mbégte bu baax di xam ne taalibe yi murid yëpp ngi ci ak jaam ñëpp ba tax na loolu ñu ngi leen di sant leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen yooyu féete ci yàllu média yi di tasaare xibaar yeeg ñi mënta ñëw di teewlu ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant ci loolu di wax ne alhamdulilahi rabil alamina yàlla na yàlla doole dimbale seen médias yi yàlla sunu borom mm, doole leen a dëral na ngeen ci bëgg lépp yàlla defal leen ko tam sedd guyu cay dégg jàmm di am jàmm. loolu de moom xanaa murit man damaa defe ne ñëpp dañ ci ànd mbégte ndax sëñ bi man defar ko ne day nuroo ko yàq ndax boo gisee fu nekk dëkk dëkk kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ku ci ne Tuubaa fi la fi la sama am tekk baax ñu dëkk dëkk ba ba nga na nga koy defar da nga xëy su man ñu dëkk ba mel ne danga koy yàq waaye ba nga la ñuy war a dëkk ba ba lépp jub ñëpp xam na ne lii mooy li war a nekk sëñ bii lii muy deflu mooy defar gi rek mooy day defar rek ku ne xam ne sëñ Muntaxa borom yërmande la ca defar kon daanaka nit ñi euh, amu daanaka amul ci métti lii li métti mooy li ñuy liggéey di ci doxal seen kër yi rek defe ne day tardé ca loolu li ma leer mooy bu li eggee yokkute rek lañ ci gën a gis ba tax na bu loolu buñ ci am benn xiliyaar nañ ñëpp ànd ak xel mu dal te xam ne lañ bëgg daañu ko am ci barke Sëriñ Tuubaa doole seex ni baaxee rek xam leen moom lii lépp lu yàqut ak defar la lii lépp talibé bi am nañ yéene ci ñu defal ñu defal leen ko ndax Touba ku fi nekk rek foog naa ne te nekk talibé lu defar Touba rek moo la war a neex kon nag ñu ngi sant talibé yi nga xam ne ñoom it ñoo moomoon barab ñoom ñoo defaroon bagage yi fii xam ne lépp ñu ko woon pour pour dara waaye nag ndigal moo ëpp lépp ñi ko yàq it bëgguñu ko yàq waaye nag ndigal moo ëpp lépp ñoo gën a muñ te gën a góorgóorlu ci kenn bañ fa kon nag amee benn loo xam ne rek lii dafa dëkk noonu rek lay defaral bi rek ku dëkk Touba lay defaral ñoo xam safar nag ñu dem ba weesu lii ku nekk ne alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi yeex naa def lii mooy sunu jaamu yàlla wax dëgg yàlla moo tax ñu kontaan yi ndax ay jullit ay nekk ay taalibe nekk ay murit liggéey sëñ bi nag moom la maam Cheikh Fall dafa mu nekk jaamu yàlla am kon nag bu ñu a a a a a baax ci jëf ji ñu ngi koy def ngir jëmmi yàlla ji suñu maam defoon ko ngir jëmmi yàlla ñu topp tànk yooyee ba léegi di def ngir jëmmi yàlla ci ci sëñ Touba di jëf ngir jëmmi yonent bi ci sëñ Touba loolu mooy suñu jëf ji julit ak xàndal ndax dafa am loo xam ne ku xàttana joxe rek yëg yàlla mooy tax nga ko joxe ku joxe sa warma joxe sa alal joxe sa njaboot joxe sa lépp ku yëgul yàlla mënoo ko def